ginnaaw bi ñu sant yàlla julli suñu bi sant suñu ñaari waajur ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar baax baax baax di fay baax mais Double la ma war a teewaay bi tey waaw teewaay bi suñu rakk moo xew la fii de Serigne Ndiaye mu nekk booy bu am yar booy bu joxe cër ñu bokk écrit mu nekk booy bu rëbës yaakaar mu nekk booy boo xam ne dañoo am si moom yaakaar moom combat war a bëre le 12 di def open press tey moo tax teew fii pour dooleel ko daal di ko ñaanal yàlla may ko ndam le allah waaw mais lan nga koy dolli fii sa Serigne Ndiaye comme sa rakk la comme sa rakk la lan nga koy dolli. waaw kii li ñu lu ñaanal ko yàlla may ko ndam rek ndax boo ko xoolee xam ne pare na def na lépp lu mu war a def fi ñu toll amuñu lenn luñ koy dolli lu ñaanal ko yàlla rek yàlla mi nga xam ne moo yor ndam yàlla suturaal ko samedi may ko ndam bu sedd guy. mais noo ko gisee si entraînement xel dal na si moom. waaw normal moom kenn ko wax demal entraîné ji wax dëgg yàlla ndax lu mu bëggal boppam la moo tax wax dëgg yàlla sunu xel day dal si moom heure bu ñu ànd ak mais double ñi dañ laa namm dañ laa koy gis si làmb. waaw dañ leen gisee maa ngi woon nag wax dëgg yàlla dama nekkoon dama amoon blessure. amoon naa combat maag maamale mi ñu ko doon waaj. si diggante bi ma am blessure bi xaw a yàgg nag. mais léegi alhamdulilah wér naa bu baax ba dugal naa sama lettre de guérison instant yi promoteur bi laay déglu mu fixer ñu bés ñu mën a bëree. mais fan nga ci wàccaay yi toll yi. waaw wàccaay yi ñun ñu ngi si li ñu war a nekk rek chaque jour parce que ñun même bu ñu amul combat ñu ànd ñoom di liggéey chaque jour moo tax ñun du ñu bàyyi dara du ñu bett instant yi leen la ñuy xaar bi wax ñu lu leer ñu mën a bëre parce que yàqamti nañ lool. mais ba pare nga Mama Lamine daanaan la de. waaw ñun ñun ñun chaque jour dañuy pare ñun ñun ñun xaaruñu combat wala ñàkk combat man sama blessure li ko gën a yàggal loolu si la bokk. parce que damay dem ba war a wér may may dem di entraîner amaana lool sax moo tax mu yàgg mais léegi alhamdulilah daal. mais ni ma la yaa ngi si faru parce que da ngaa waaw ñun ay xale lañ ñun ay xale lañ te ñun mooy loolu làmb lañ am bàyyi suñu lépp ndax làmb nekk ay xale di entraîner chaque jour moo tax temps bu ñu toog bëre wuñ rek dañuy perdre looloo tax actuellement nii bëgguñu lu dul bëre parce que bu fekkee nii la nar a continuer mieux vaut sax ñu bàyyi làmb dem xool leneen parce que làmb dafa metti wax dëgg yàlla non raar gars yi di laaj double moteur la nekk ñi naan dafa bàyyi bàyyiwul dafa blessé wala blessé wul mais lan la lan mooy problème waaw blessure la amoon toog nañ Brésil toog nañ un an bëré wuñu so dama defoon soog bu metti su ma juumul vidéo yi ñëpp gisoon nañ ko bi ma defee sorti wane sama tànk bi waaw instant yi wér naa ba dugal naa sama guérison samedi bële laa dugal sama guérison instant yi promoteur bi laay déglu su promoteur bi la des instant yi pour ñu bëree waaw na promoteur bi moom rek la ñuy xaar wax dëgg yàlla parce que yàgg na toog nañ temps bu yàgg bëriwuñu te bëri rek lañ bëggee instant yi wallahi azim yàlla fils de Serigne Ndiaye caatu Mbomboy bébé Reug Reug xam nga ak caatu yorwaay boo yem combat yëpp ñu leen ñaanal yàlla may leen dem. lan mooy sa di sant yàlla bu baax rek di ñaan yàlla jàmm yàgg ci réew mi xam nga di ñaan yàlla promoteur mu gaaw jàppoon ñu bës ñu mën a bëree. Thank you.